ménopause bu ñu ko déggee mooy période bi nga xamante ne ku jigéen ki dafay dem ba dootul gis euh, ay règlam d'habitude dafay euh, intervenir entre 43 ak 50 ans la ñuy wax ndaxte oestrogène bi nekk sa yaram moom mooy wàññeeku ba tax na euh, dafay am ay symptômes yu bëri yoo xam ne danga koy am Euh, avant muy ñëw ak bu ñëwee ak après muy ñëw lan moo tax ñu ci wax ci journée mondiale jël journée jagleel ko ko risques yi mu àndal dafa bëri mun nga dem ba am ostéoporose sa yax yi gaaw a damm euh, mun nga dem ba am crise cardiaque mun nga dem bay dem di fàtte donc feebar yu bëri yoo xamante ne c'est Euh, à la ménopause donc pour euh, pour éviter yu loolu yëpp dañuy wax que nit yi nga ne nga xam ne ñoo nekk euh, périménopause mooy avant ménopause bi fin quarantaine la en général ñu dugg benn site boo xamante ne ñu ngi ko tuddee ma ménopause point ca déjà site boobu am na information yu bëri par rapport ak ménopause bi mais dafa am benn questionnaire bu ñu lay defal pour diagnostiquer ba xam yow jege nga ménopause wala déet question yi ci di dix partie la la la correspondral donc première bi dañ lay laaj ndax da ngay ñàkk guddi gi ba pare di am anxiété maanaam di tëdd nelaw di tiit ak di yeewu sa fit di dem ak genre yooyu ba xam da nga am difficulté concentré wu bu dee looy def doo ci mun a concentré wu euh, dañ la koy laaj ba xam am nga da ngay am amnésie parfois à l'occasion cest à diir di fàtte boo waree def dara fàtte ko boo waree dem fenn fàtte ko yu bëri nga koy fàtte ba xam na nga am trouble du sommeil c'est-à-dire di nelaw di bañ a nooyi bu baax di nelaw di yeewu di nelaw sommeil bu agité nelaw yu metti ndax sa yaram am na changement physique c'est-à-dire euh, yokk nga pois wala wàññeeku nga yenn wàññeeku yu <laughs> garaaw yu mer yaa ngi compté <laughs> di laaj dañ lay laaj aussi ba xam toog nga lu toll ci 12 mois gisoo sa règle aussi Euh, laaj la ba xam bëgg nga toujours di sekk dara ak sa jëkkër wala déedéet ak tamit ba xam am nga sécheresse vaginale euh, beneen question bi ci topp mooy ndax yow yaa ngi contrôler sa yi c'est-à-dire ba xam bu fekkente ne da nga am envie dem toilette pour saw ndax di nga ko mën a controler wala déet. Euh, laaj la aussi ndax da ngay déprimer ndax parfois da ngay toog di déprimer di la am lu la na xarit te kenn defu la dara bu fekkente ne dix questions yi ñu la posé am na ci yenn yoo xamante ne wala benn sax boo xam ne réponse bi réponse bu positive la c'est-à-dire que da nga répondre que waaw am na yenn yu lay dal ci yi dañ lay conseiller nga dem euh, seeti sa gynéco parce que ménopause signes yi mu àndal lii yëpp ci ay signes yu ménopause la mais signes yëpp mun nañ koo traiter ba nga xam ne day wàññeeku Euh, mun nañ la jox ay conseil ba nga xam ne day wàññeeku conseils yi ci ëpp nag euh, kii la kii la tollool euh, ci alimentation la nekk dañ lay changer loo rythme ritme de vie def lool la sport et puis ngay gën a posé di bañ a anxieuse di bañ a parce que stress tamit daf koy daf dangay ngay stressé bu la dalee en fait ndaxte ci sa dépend des sociétés am na société yoo xamante ne soo eggee ci ménopause dañ naan egg nga âge de maturité jox la yenn responsabilité yi alors que am na yeneen jigéen yoo xam ne ni ñu koy dundee mooy ñoom elles ne sont plus utiles parce que d'habitude duñu liggéey te dootoo mun a féconde c'est-à-dire dootoo mun a am doom donc elles se sentent inutiles quelque part loolu mooy gën a indi problème yi nga xamante ne dañ koy am ci biir euh, ci biir ménopause ba pare bu dee Sénégal par exemple nga xamante ne góor yi am nañu droit taq ba ñeenti jabar dafa am jigéen yu ñu laaj ñoom nee nañu ménopause buñ ci egsee dañuy tiit parce que ñoom dootuñu mun a am doom te bu fekkee ñoo seen jëkkër ñoo tolloo génération ko dafay mun am doom ba léegi donc dañuy ragal jëkkër bi dem takk beneen jabar bu leen gën a jeune pour am yeneen doom bàyyi leen de côté donc loolu moo leen di metti ci ménopause bi mais ñu jàpp toujours que c'est étape bu normal la en fait jigéen ñëpp si àdduna dinañ ko am OMS dañu def benn chiffre ne d'ici 2030 dinañ am 1,5 milliard de femmes yoo xamante ne 50 euh, ans la ñuy am donc mu nekk étape boo xamante ne ñëpp a koy am et puis ak euh, avancée technologie yi ak médecine bi dañu yaakaar ne niveau de vie bi dina gën a élevé de ce fait euh, li ñuy wax jigéen ñi rek pour dund tranquillement après ménopause mooy bu ñu xoolee que ñoom kat ñi ngi sentir ne yegg si nañ périménopause ñu commencé dem seeti seen médecin parce que foofu lañu koy préparer ñu jox la alimentation bu baax ngay def sport euh, bañ di tux bañ di naan Euh, bu ko defee nga am euh, benn rythme hygiène de vie bu baax de ce fait daf lay préparer ba nga xamante ne ménopause bi bu ñëwee tamit même bu fekkee dina am ay changements yu muy apporter ci sa vie du la sonnal. alors ce qu'il faudra retenir mooy bañ a toog parce que ñu bëri bu leen dalee dañuy toog foog ñu lu naturel la dal na leen noonu donc ñuy anxieuse et tout ça l'idéal est nga dem seeti gynéco dem seeti borom xam-xam. bu wax ak yow garab yi nga war a jël ak comportement yi nga war a lekk lan nga hmm. war a lekk surtout parce que alimentation bi daf ñu am solo ndax fii ñun dañuy dox di lekk lu ñu neex boo dee xool ostéoporose mooy yax yoo xamante ne voilà donc il faut ngay déjà gën a lekk lu am calcium donc bu fekkente ne dugg nga site bi ma joxee joxe maménopause point ca nga xool question yi bu dee am nga benn réponse bu positive rek benn boo xam ne oui 6 sur moom gën a la daw déjà benn rek lañ wax boo ko amee demal nga xool gynéco bi moom dina la mun a wax ndax euh, vraiment ménopause la ak yan comportement nga war a am et puis wax jigéen ñi que c'est un état bu normal la mm. Euh, ngay stressé wala ngay stigmatiser sa bopp naan kenn soxlaatuma et tout ça vie bu ci nekk ay étape la dangay nekk xale nekk ado nekk adulte pare egg ci ménopause màgget dafay ñëw ñun ñëpp même parcours la ñuy am donc ne pas euh, di tiit wala ngeen di stressé c'est très normal. mais waaw te duñu dem sax rek moo tax ma insister par rapport ak. ba pare euh, périménopause bi gynécologue mun na mun na intervenir plusieurs années avant ménopause bi. c'est-à-dire que mun nga ko am ci sa euh, sa quarantaine bu xasee dugg. mun nga ko am mais ménopause bi mun na ñëw à de cinquante ans ba cinquante cinq ans donc d'ici Pape Cheikh ma fàttaliwaat ko rek. pour euh, nit yi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy seetaan. Euh, bu fekkee da ngeen am di ñàkk guddi wala ngeen di anxieuse tàngaay buy xam ne day jékki-jékki bouffée de chaleur yi yéeg def 30 secondes à cinq minutes mun na la dal pendant période boobu nga agité wu jaxasoo anxiété bu fekkee da nga ko am wala difficulté de concentration doo mun concentré aussi dara di fàtte amnésie te loolu daanul la dal euh, am trouble du sommeil doo mun a nooyi bu baax ci biir sommeil mérivé rek na ma rey ak compte bi bu fekkee da nga gis changement physique sa bopp wàññeeku wala poids bu yokk surtout au niveau de la taille bu fekkee da nga toog plus de douze mois amoo say règles wala règles yi nekkul règles yoo xam ne day ñëw chaque mois voilà euh, bu fekkente ne bëggatoo sekk ak sa sa borom kër yenn sekk yi bu fekkee da nga am sécheresse vaginale aussi wala mënatuloo téye sa bopp boo safee saw wala ngay déprimer boo ci am rek demal nga gis sa gynéco dina la wax ndax pose la wax la ay conseils yoo xamante ne moo lay dimbali ba ménopause bu ñëwee doo am euh, feebar yi nga ci mën a am yëpp. mais jigéen rek mooy ménopause. góor yi du ñu ménopause. parce que jigéen moo am oestrogène mooy am ay rek en fait jigéen. nombre de fexeel ba ñu ménopause. mais itam yàlla séddale. mais bii dama bëgg nga def dama bëgg nga def ay bii xool <laughs> yi dem rek. beneen tur eh, mais jigéen la seetal ko beneen tur nga xool góor yi kañ la ñuy moo tax parce que ñun bu ñuy judd dañuy am nombre d'ovules boo xamante ne moom la ñuy am mais góor yi ñoom bu ñu juddoo màgget eh, waay waay waay waay waay waay waay li ba jëm la bàyyil góor yi xanaa kii kattan rek la ñuy ñàkk mais bon jigéen ménopause daal jigéen la concerné ndax nombre d'ovules yi ñuy am dafay dañ chaque règle di nga di nga éliminer ay ay benn wala ñaari ovule donc ovule yooyu bu demee ba jeex tàkk ci ngay egg ménopause waaw je vous rassure am na. Ah, à 70 an ñoom ñuy am doom. am na génne en Thaïlande mais c'est des exceptions. ah les asiatiques sont réputés être très fertiles donc ñoom seen ménopause c'est décalé par rapport aux autres. xanaa ñoom 80 mais ah, loo gis am na exception. voilà loo am na am na exception. am ñoo xam mais ñoom moom c'est la race qui est comme ça. on pas compris parce que bi ñuy consommer soja moo ouais. ah soja j'imagine ouais. <laughs> moom asiatique la dafa rax Asie moo tax muy dalal xelam. asiatique sa deretu Afrique gën a fort sa bu Asie. lu leer laa la sa deretu papa xaw ma sa bu yaay bu ñuul bi. moo gën a fort sama deretu séeréer yi ngi séeréer bi lébu yow sa Sénégal a gën a fort neen day dalal xelam noonu yóbbu boppam Asie naan asiatique tu sais ñoom dañoo kii. Eh, deretu néeg xamoo ñu ñun suñu bos dafa fort. ñun bu ñu mélangé ak ay pirogue yooyu sax suñu bos day kii. dara ñun dañoo foore yow waa fii nga <laughs> bëgg ñibbi bëgg ñibbi Vietnam noonu vite fait noonu. le <laughs> Eh, africaine. <laughs> en tout cas entre 43 ba 55 ans lañ koy wax donc bu fekkee jege nga 40 ans eh. rek gën a dem ci gynéco gën si bàyyi xel. bu fekkee am nga yenn changement yi nga xamante ne moom nga gis ci sa yaram. Uh-huh. nga dem seeti sa gynéco conseiller dama am envie xool seen ay carte di seen identité yi. ndax ñun ñu yow mi yaa mel ni ñan fi jege 40 ans. <laughs> suñu police bi dafa retiré suñu carte d'identité yëpp. ah ok man amu benn pièce. police partir de 35 ans. Uh-huh. pause mën na commencer. si am na ñu koy am plus tôt en fait ça dépend des gens parce que chiffres yi OMS joxe. c'est mhm. en général bu fekkee dañu def benn sondage généralité bi la ñuy jël mais. am na ñoo xam ne dañ koy am plus tôt. trente cinq ans am na ñoo xam ne dañ koy am plus tard. soixante-dix ans comme moo tax parfois dañuy gis ci àdduna bi jigéen bu am cinquante cinq ans am doom. Mm. wala ku am yeneen âge am doom. parce que ménopause am jegewul comme ñenn. Oh oui et puis et puis loo gis comme on a dit tantôt day am ay mm. suñu borom dafay feeñ tout le temps. Janet a ngi cinquante ans ëmb. waaw Jackson ma Michael xaw ma Michael waaye xam nga mooy loolu. on a vu aussi une femme de de plus de de cinquante ans bu am doom bu yàgg yooyu yëpp ay kéemtaanu suñu borom la en dehors de dem seeti euh, dem seeti gynéco parce que loolu mooy l'idéal loolu mooy obligation bi sax pour jigéen bu ab at yooyu <laughs> Aïssatou Diop Fall ñu ngi lay nuyu euh, elle elle dépassé juste ñu ngi koy nuyu bu baax euh, ku ci am mbokk

oui je en, en plus de garab yi ak dem seeti borom xam-xam yi. ak sport ñu leen di toppatoo waaw ñu leen di toppatoo. di leen toppatoo dafa baax. dañuy soxla affection. oui il faut ñu leen di toppatoo il faut ñu leen di toppatoo c'est vrai que buñ duree jàmm ñun ñu ngi koy ree mais am na ay jigéen yi ñuy seetaan et que ñu ngi ci ñu ngi ci situation boobu quoi. état bu naturel la étape boo xamante ne jigéen yëpp dinañ si jaar. Mm. jigéen boo xamante ne yaa ngi fi ba cinquante ans. entre quarante cinq cinquante ans di nga ci jaar donc euh, préparer ko rek et puis comme ni nga ko waxee. Mm. boo amee ku mu dal sa kër nga jéem ko comprendre. parce que parfois jëkkër yi duñ comprendre dañuy jékki-jékki nekk jabar mu laay waxal sax. même jëkkër yi itam ah. duñu comprendre. parce que sa jabar da ngay nekk ak moom mu normal à mm. moment donné nga gis ko. Euh, mu obligé mais man je parle plus ak les enfants. ah que xale yi dañu toppatoo. nañu toppatoo seen yaay yi waaw. gën waxtaan ak ñoom buñ gisee ñuy mer ñu bañ leen topp ci mer bi parce que da ngay da ngay neexalaal daal lu ndaw lañ lay def nga mer te voilà du ko jar sax parfois mais bon. parce que ah, moo tax da ngay jékki-jékki seet suñu yaay yi bëri wax. ñu rey ak wax. yooyu yëpp waaye mère dafa bëri wax. <laughs> comprendre leen mère bi quoi yow yow après ngay ko taaj la ay teesante ay réunion de famille yooyu yëpp yooyu koy ménopause da koy indi. réunion de famille jaara kër ga dimanche dama la soxla xam nga yooyu yëpp. c'est difficile quoi. yaa ngi en tout cas sujet bu am solo la merci Bijou si euh, ci euh, euh, lu nga indi jëm ci méno méno méno wala ménopause rek wala monopause. ménopause ménopause voilà avant périménopause. périménopause on dit souvent préménopause mais on dit péri ménopause bon je